bégal sama askan Ladoum TV c'est Ladoum TV ding ci gis sa bopp jànge falun émission chez le vétérinaire dina ànd ak yow saytu wergu yaram santé animal dina saytu sama laanu mi dunde fii ci Ladoum TV TV jox la kàddu nga mën a wax sa jaar jaar danga ko raw mm. visibilité dinga am promotion dinga am nanga wane bi nga am ndam Ladoum TV télé askan mooy wane fi nga mëne ndax ñëpp xam Ladoum TV. téléspectateur Ladoum TV maa ngi leen di nuyu di leen charré di am mbégte ak contentement tey ñëw fii ci bergerie Mbakol ñëw seet si un très grand champion Cheikh Diakhaté ñu ñëwoon fi ay ci ginnaaw fekkoon ko fële ci euh, marché dégg ba mu yoroon ay produits yu mucc ayib nekk ci élevage bi di liggéey liggéey bu rafet tubaar fa kàlla tey ñu fekk fii nag. mu sanc bergerie bergerie mbaakool ñu fas yéene génn nag xool li ci ginnaaw li ñu fi bàyyi woon ak tey li ñu fi fekkaat ñu bàyyi ko mu nuyoog téléspectateur Ladoum TV Cheikh. salaamaaleykum maa ngi leen di nuyu yéen waa Ladoum TV euh, di leen ziar tey rafetlu seen liggéey leen wax ne macha allah euh, ñëwoon ngeen fi fekk ma fa fële ñeen ñëwaat fekkaat ma fii maa ngi leen dalal jàmm fii ci bergerie mbaakool kon boog allah buñ koy ñëw macha allah loolu am na solo Cheikh ñëwoon nañu bergerie ba fële ci marché dégg ba Daaru Tanzil fekkoon fa nga yor fa ay produits yu rafet ay xar yu mucc ayib ci jamono jooju ci ginnaaw nag fekkoon nañ fa mu yoroon maal bu doy waar maal bi nga xamante ni si lu mu produire gongo lu mu produire gars yi ne kontaan nañu. tey nag ñu ñëw seet si maal bi encore seet si Cheikh xool li nga xamante ni si moom la Cheikh liggéeyaat. Hmm. ci jamono jooju ak fi mu tollu léegi ndax Cheikh. yokk na cere dool la ñeex te ku yokk cere dolli ñeex nag war a dolli palaat ànd ak seen télévision leader Ladoum TV ci seen émission fi ma jaar. fii mooy euh, box bi ñuy tuddee Daaru Marnaan. Daaru waaw ñu am fii euh, yenn quelques femelles. wala ay ak ay añal. am benn maal. maal boo xam ne ñun ñoo ko juddulu mhm. mu nekk euh, doom ci Massiré. Mhm. aslem 5 voilà yaayam nekk doomu aslem cinq aslem 5 nekk doomu Boy Ngeñ Boy Ngeñ nekk doomu Gelwaa Gelwaa nekk doomu Algor. donc maal bi mu ngi commencé def ay production yu doy waar fii ci gétt yi. macha allah bu demee ba ci biir dinaa la war ay quelques production bi nekk fii. Mhm. am nañ fi tamit benn doomu docteur Fall. Mhm. mu nekk nii benn femelle. Mhm. docteur Fall itam nekk. docteur Fall doomu magistrat. doomu magistrat macha allah bi doomam la. am nañ fi itam ah, benn doomu benn jeune man bi doomu kii la. doomu euh, mas doomu sayar la. ah doomu sayar doomu sayar la sayar bi nekk ci Papa Ndiaye allah doomu sayar la. Mhm. nekk euh, sayar nag euh, doomu kii. sët docteur Fall. macha allah doomu docteur Fall. donc mu nekk euh, ay produits yu xam ne si nii produit bii ni ngay gis noonu. cuulul mhm. bi cuulul bi. Mhm. moom euh, doomu jak euh, doomu jakpot moo ko jur. ndeysaan surtout jakpot la waaw macha allah borom trophée yi. borom trophée yi. oh borom macération borom macération borom trophée waaw waaw kooku du ay <laughs> moom moo nekk. kooku la élevage di jooy ba léegi te noppeegul. wallaay wallaay macha allah. nga xam ne moom li nga xam ne amoon na ko ci ay mensuration da ko doon transmettre ay doomam boo xoolee kii rek mhm. boo xam ne ci benn portée la ñu war day door a feral première portée da nga xam ne xar la bu am mensuration xar bu am dayoo incha allah à l'avenir téléspectateur Ladoum TV xool leen lii hmm. ah, macha allah macha allah tubaar fakkal sa bàyyi ñu ne jackpot loolu rek dafa doy càmm seex dëgg la aca seex waaw am nañ fi itam beneen añel di añal bi ñu koy wax euh, euh, Saara Dia. bi uh-huh. ñu koy wax Saara moom mi ngi toll ci ay euh, onze mois. ndeysaan di door a tëbu. Uh-huh. donc nekk doomu Mawlut. Uh-huh. Mawlut nekk benn maal ba fi amoon Mawlut doomu. doomu salaam la. salaam bu sëñ Moussa Mouhamadan. yaay ji itam nekk doomu. Euh, Sik Saka Sik Saka nekk doomu Cheikh Diop nga xam ne sëtu Cheikh Diop direct la. direct loolu bëriwut ci gétt yoo xam ne yaa ngi fi sëtu Cheikh Diop direct. direct mooy yaayam daf fi jafe raar daf fi jafe waaw yombut. Mm-hmm. moo tax boo xoolee ci dayoo xar mi da ciy feeñ. Mm-hmm. itam euh, ya bàyyi ji da ciy feeñ. Mm-hmm. muy euh, muy sëtam maam ji muy salaam. da ciy feeñ. amaan nañ fi beneen femelle tamit boo xam ne. moo nekk femelle bu. waaw mooy waroon waroon loos bu ñuul bi tëdd nuyu bi tëdd nuyu bi. tête nuyu bi waaw moom it euh, nekk benn famille boo xam ne. Mhm. itam euh, ci Pam Ndiaye la jóge mhm. nekk benn sëtu Saloum bu doy waar moom it. wàccee fii moo jur seen maal bi. moo mhm. nekk euh, deuxième deuxième deuxième deuxième doomam. ah moo moo jur maal bi moo jur seen maal bi seen maal bi waaw. Pam Ndiaye moo ko jox bi ma ko jox daf ko tegoon ci sayat. sëtu Saloum la kii nii sëtu Saloum direct almetu kafaal gi. voilà kos muy boy boo gisee rek. da ngay xam ne. macha allah waaw mu nekk bii nekk deuxième portem donc mu jox ma ko. sama caméraman jëlal ma kii. waaw jëlal ma kii dinañu wax longue passe ah. longue passe loos bi. Uh-huh. loolu di sànni dégagé. ba mooy longue passe. téléspectateur Ladoum TV xool leen kii bu baax a baax am na gabari. Uh-huh. am na LCS. macha allah am na booti aussi. te koy def ci production parce que am na beneen doomam boo xam ne man yoruma ko. Uh-huh. mais doom bu doy waar la. macha allah macha allah. pour l' instant tegal nañ ko ci. Euh, teg nañ ko ci mais ñoo di xaar. xam naa la fa nar a juddoo moom. or lay doon or lay doon ndax. kii tey fan nga yaakaar ne war na mën a yóbbu sa élevage. non kii mën naa yóbbu fu ne élevage. parce que xar tamit aussi dafa nekk dafa nekk ñaar critère. Mhm. dafa am xar yoo xam day am critère euh, phonétique. Mhm. am yoo xam dañoo am critère eh, dañoo nekk euh, génétique ba pare li ñuy def gène bi li ñu yor dañ koy def seen i doom. Mhm. mais kii boo xoolee. ci génétique am ak phénotype am yëpp da koy transmettre ci ay doom parce que dama koo jël teg ko ci benn maal maal bi nga xam ne moom laa fi yor fii muy Michelin. Mhm. di xaar te jàpp naa ne danaa ci am lu kawe njort. macha allah parce que yi nga xam ne euh, Michelin commencé na def ci gétt yi. Mhm. production yi nga xam ne si moom la jot a def. Mhm. boo leen boolee muy ñaari xare jurkat da ngay am njort ne. mën nga ci am lu kawe njot macha allah macha allah yal na yàlla mottali. amiin tubaab fakkaala téléspectateur Ladoum TV bu ngeen xoolee femelle bi ngeen xam ni kii du ay caaxaan du ay foo. yaa jee numéro 2 yaa jee numéro 2. macha allah macha allah téléspectateur Ladoum TV bàyyi leen ko xel bàyyi ay produit am xel ndax production am yi muy def boole nañ ko mu monsieur moom la porte ni ñu toog di xaar. Mm. bu ngeen xoolee jeune mâle bi nga xam ni moom la taalool. Mm. bu ngeen xoolee jeune mâle bi da ngeen xam ni kii dara la. Mm. kii axlu élevage na ko bàyyi xel. kii tey jeune éleveur bu ko yoroon tey lan la mën a wax ci kii. kii xam nga boo xoolee euh, seen maal bi moo ngi gis manqué wul dara day wax mhm, mhm. daa dèjà rafet na. Mhm. ba pare day am doole. day am LCS parce que boo gisee bàyyi rek. kenn du la ko kenn du la ko parce que LCS bu bëri la yor. te Zilmal bi ni mu juddoo dafa judduwaale doole. te judduwaale tamit aussi boote ndax boo ko gis nii da ngay xam ne. man lu ne euh, mën na ko doon ëllëg. dëggantaan ci ci côté yëpp. du manqué wul fenn macha allah. waaw. macha allah macha allah moom dafa teel a génne dooleem. dafa kenn dama ko fenn moom mi ngi si tool ñaata mois. bii mi ngi ci 7 mois parce que janvier la judd. oh le 27 janvier parce que mi ngi door a kii 7 mois. macha allah macha allah 6 mois 6 mois. 6 mois waaw 6 ah, mois. le 27 janvier la judd quoi 6 7 waaw. voilà macha allah mais boo koy xool da ngay da ngay macha allah parce que fii kii moom. Mhm. ndaanaan ndaanaan daal en tout cas na ko élevage xaar daal. non beneen affaire la na ko ne élevage xaar. macha allah macha allah macha allah ah téléspectateur Ladoum TV bu ngeen xoolee box bi ñu nekk nga gis fi benn maal bu doy waar maal bu rafet macha allah macha allah ñu boole kook ay jabaram mu nekk ay femelles yu doy waar femelles yu extraordinaire fii surtout Saalum nekk fi fii doomu jackpot nekk fi loolu rek dafa doy càmm bu ngeen gisee tamit yeneen femelles yi ñu fi yi ñu yore oxo oxo à suivre ñu duggaat ci yeneen boxu Cheikh. Daaru Xuddoos. Daaru Xuddoos jóge ci Daaru Salaam dugg ci Daaru Xuddoos. Daaru Xuddoos ah téléspectateur Ladoum <laughs> TV yéen a déggandoo yéen a gisandoo jóge ci box daaru salaam dugg si box daaru xuddoos kon xam ngeen ni daal bergerie Mbakol du ay fo du ay caaxaan Cheikh ñu dugg ci bergerie bi box bi ñu nekk nag nga présenté ñu sujet yi fi nekk waaw box bi euh, ñu pré présente premier sujet bi mhm. kii mu nekk euh, femelle bu ñuul bi am euh, mooy borom collier bu rouge bi collier bu njëkk jot donc kii ki nga ab doomu magistrat la. ki nga ab ku ne xam nga ko. waaw ki nga abu moo nekkoon ci Youssou Diol. voilà tubaab naan boobu ndaanaan bu mag boobu. Mhm. donc euh, sama benn grand joxoon ma ko. Mhm. ñu wax euh, euh, Mout Faye. Mhm. donc mu nekk doomu kii ab mu ngi ci deuxième portem fi mu toll. deuxième portem moom it am production yu doy waar parce que instant bi li naan xar moom génétique. parce que boo xoolee ñaari doom yi nga xam ne am naa ko ci mu benn benn bu taxawaalu job eh, benn ba jaay naa ko benn bi nga xam ne moom la moom lay nàmpal ni ñu ma ci topp mhm. su fekkoon ne tey jii Euh, mën naa ne nuru naa Pape Ndiaye mi nga xam kafekat la dama ko daal di macha allah macha allah waaye comme bu fekkee ne ñun dañu comme ni ma la ko waxee rek ay débutant lañ mm-hmm. loo xam ne yoonu élevage taxul ñu di ko génne léegi du yoon mm-hmm. sax téye mm-hmm. pour liggéey ji ba ci kanam macha allah macha allah lu bët li ci kanam ngay fayeeku Cheikh ñu gisaat fi beneen tëng waaw nga présenté ñu tëng ba tëng bi euh, mooy madame madame kii mooy madame Dione donc euh, boobu doomu kii la doomu doomu daaru minam la daaru minam bu Pape daaru minam uh, doomu asalem cinq la asalem 5 nag uh, uh, doom booy ngañ booy ngañ nekk doom doom gelwaar gelwaar nekk doomu algoor donc yaay yaayam moom doomu King Abdou la nekk doomu magistrat doomu donc dafa mel ni dañoo boole auteur ak doole mhm. moom la ñuy rimbu fii macha allah macha ci première porte porté maanaam porté na ba nàmpal nii bay. bay dugg ci deuxième portem deuxième portem la porté nii daal. day door a tëbu pour deuxième portem. macha allah macha allah yàlla na yàlla barkeel. yàlla na yàlla barkeel waaw ba tey rek. gisaat nañ fi tamit beneen femelle. bu takk collier bu orange bi. voilà léegi euh, femelle bële. bële nga xam ne moo takk collier bu orange bi. waaw. waaw kii la ñuy wax euh, kii lañuy wax la diva. la diva. la diva. kii bokkul woon ak la diva bi doon jël affaire yi. non bokkul moom dañoo bokk tur. dañoo bokk tur rek macha dañoo bokk tur. Mhm. sama benn euh, jabaru xarit laa ko tuddee quoi la diva. donc moom mi doomu CEDEAO la. Mhm. CEDEAO nekk euh, doomu Picasso. Mhm. CEDEAO moo nekk Cheikh ci Erdogan. Erdogan Picasso moo leen di. macha allah sànq nii boo gisee sama gars bi ñëwee doomam moom lañu doon ñëpp di coow. kii li mu dajale ci capital génétique est-ce que xam nga lu mu seex kii li mu dajale ci capital génétique moom laa la doon wax ni léegi lépp mu ñu ko wax fii sax xam naa après danañ ko gën a. Euh, faram fàccee danañ ko jéem a gën a faram fàccee incha allah. macha allah macha allah loolu ci ma su ma nee damay liggéey ci doomu Saloum bi. damay xool ñaar yi nga xam ne bii les meilleurs doomu Saloum ci côté production. Mhm. wala ci côté macha macha allah nga xam ne kon téléspectateur Ladoum TV Cheikh Diakhaté li muy def tàndu ko de lu mu maîtriser la lu mu xam la parce que boo xoolee kii li mu yore ci capital génétique lépp mu jël ko am fu mu ko teg li mu wàccee bu leen ko wanee loxo day dar gémmiñ macha allah ba tey rek ñu duggaat ci biir gisaat nañ ci beneen tëng tamit tëng bu rafet tëng bu weex. bi mooy maison blanche ko maison blanche eh. mooy borom bopp tache tache bu ñuul bi ci bopp bi borom bopp tache du ñu te te damm na maison mhm. blanche. macha allah kii itam euh, dama ko fonk parce que sama produit la bokk. comme mhm. produit yoo xam ne tey ci sama man maa ko croisé. Mhm. man maa jënd bàyyam nekk seen maal. jënd yaayam bi muy nekk mbote. moom mii. mooy sama première dëkk yi ci la bokk. macha allah maa leen croisé nii. mu ngi nekk euh, benn doomu salaam bu ñuy wax Mawlut. Mhm. salaam bu sëñ Moussa mhm. benn doomu Daaru Minam bu ñuy wax Linguère boole leen maison Blanche juddu. macha allah maison Blanche nii mu toll nii. ci auto ak ci LCS. Mhm. bu laa maanaam mi ngi ci 14 mois mu damay jaaxal. mi ngi ci 14 mois. mbote mii la njëkk a wàcce. allah macha allah macha allah. kooku mooy première kéem. c'est téléspectateur laa doon TV. moom lay naan mois génne auteur bi waaw te xoolal sa waay bi ko téye lim ko sutee bëriwul kay ah. day am auteur te itam femelle lay doon ban femelle lay parce que day nàmpal. Mhm. day nàmpal mais eh, ne ko élevage daal en ne ko élevage xaar. fii euh, dama koo teg ci Meslin pour mhm. laa ko teg. Mhm. ñoom ñuy judd. doom ju juddu. macha allah xam ni itam aussi ci mbote boo gisee ci amagut euh, un mois. mi ngi ci environ ay euh, vingt jours am day am euh, day am day am kii day am mbote mi lu ne mën na koo doon parce que kii. Mhm. éleveur yu mag ñun lañ. sëñ Moustapha Mouhamadan mën naa xaa cité. Mhm. ne kii na ko bàyyi xel. te kooku ne ku ne xam na lim doon ci élevage du waxantu. nit ñëw na fi ne ma xar mi bi nga teg ci mes ne bu dee doomu jigéen mën naa laa fay léegi balaa am doom. xoolal ma loolu. donc loolu ñuy wax waxatu. waaw ba tey rek ki gisaat nañ fi Cheikh beneen femelle bi nga xamante ni si mi ngi takk collier bu collier bu bleu. Mhm. waaw représenté ñu kooku Cheikh. waaw kii euh, kii mooy Mamboy. Mamboy. kii mooy Mamboy. Mhm. Euh, moom la tey jii buñ koy bu ñuy wax euh, ci Touba. danaan les le meilleur femelle. le meilleur femelle de Touba actuellement moom moom moo nekk nii parce que euh, li ko wane mooy statistiques yi yi nga xam ne moom lañ jóge ci foire yi passé moo wane loolu parce que femelle bi natt nañ ko mu def LCS 150 cinquante xam nga loolu du caaxaan ci femelle boo wax ne LCS auteur bi tamit natt nañ ko dama fàtte auteur bi lu mu doon mais actuellement nii parce que buñ xoolee yi nga xam ne ñoo fi doon compétir bien sûr moo fi nekkoon meilleure famille bien sûr nekkatu actuellement. Mhm. moom moo nekk meilleure famille Touba actuellement. actuellement moo pousse bien sûr. bien dem kii moo taxaw. voilà position boobu moo taxaw. maa ngi koy euh, maa ngi ci nuyu euh, Malick Guèye bu Thiès. Mhm. au passage. Mhm. ndax famille bu toll nii Pa Pa Malick Guèye bu Thiès. ndax ku koy jël ci. di ko jox rek bëgg nga nga avancer ah, lu leer. waaw que bu ñu ñëwee loolu li ñu wax mooy lu mel noonu parce que famille bu mel nii. parce kii doomu Moussa mbay la Moussa Mbaye mu nekk doomu Maxtum. oh bu ngeen xoolee femelle bi li mu yor ci LCS li mu yor ci hauteur esthétique bi ne gongo macha allah nga jël ko teg ko ci Michelin. kii lu mu la jural lu mu la jural da ngay final ci côté góor da téye ci côté jigéen da ngay téye tubaar fa kàlla macha allah macha allah kooku mooy Mame Boye waaw ba tey rek gisaat nañ fi tamit beneen femelle nag takku collier bu orange bi. kookoo waral coow li. kii kii mooy madame Thiam. kii mooy madame Thiam. kii mooy madame Thiam. macha allah macha allah. kii mooy madame Thiam. kii. dañoo mën a wax lu bari ci moom. Mhm. kii dañoo mën a wax lu bari ci moom Cheikh. kii mooy kan développé ñu kii Cheikh. Euh, mais gis nga gis nga buñ koy rey ni ni muy def kon xam nga ni kii. Mhm. toppatoo bi jaar na yoon ah. Mhm. xool leen karaw bi <laughs> ah. macha allah macha allah mooy madame euh, mhm. euh, neex na présenté trop. Mhm. parce que bu ne euh, kuy sa yaay nga ne doomu Tigo Cash kii Xaadim Thiam sax ko war a dañuy bàyyi Xaadim Thiam bi nga xamante ni sii moo ko juddule jox ko doomu ndayam mu am yu mu sàddi ci madame Thiam mii Xaadim ayca maa ngi nuyu ñëpp di rafet rafetlu émission bi. di kontaan ci fi ma njëkk a joxe kàddu ndax tàgge boo gis day am jàppal diw te kii man lañ jàpp kii Siré Diakhaté moo ma jox yaayam ñu naan ko Tigo Cash di bette bette cent pour cent euh, ndax euh, de temps moo am ba noppi ju joxaat ko mu tëb ko mu wàcc mu wàcc Tigo Cash ma jox ko Pam Ndiaye mu juddule ko kii nag ci maamam mooy magistrat mooy maamam Cheikh Diop mooy maamam kii Daaru Salaam mooy maamam Ila Touba mooy baayam. Adja Farma mooy maamam. macha allah kii kon bu melee nii. du jaaxal kenn wàcc du jaaxal kenn. li mu kii da ñëwoon nit mënu koo jënd li tax nit mënu koo jënd nag Cheikh li mu def ku ko def jot ci. Cheikh daa xaru tàgguwuti bokkam tàgguwuti xaritam. bu mu si def nangu ko wax kenn. du ko wax kenn. ba waxee àdduna tukki. ñuul gu mag la yor. def ko lu bees tàq génne ca banque ba. Oh. fekk Pape Ndiaye ndekkeegul mu yee ko won ko ko ni ko mën naa ci. xam paap ne dal la ci suuf day xam kaddi kaddi ba dal day xam ni ko wàññil jox moom wàññi jox ko yat oh. bala avant muy tàggu bokkam Cheikh indi na xam ni li mu macha allah bergerie Mbakol daal waaye nag Serigne Saliou jàmm ak jamono ah. lu mu laal rek ca kaw ca kanam macha allah Cheikh Jaxate ngi noonu ca kanam dinaa ñëw wax li ma war a wax ay ca Cheikh ay ca Xaadim kontaan nañu macha allah waaw kon Cheikh bu ko defee kii moom il faut ñu nga woon ñu ay produit am parce que ñun ñu fi mujje tegoon nga ko ci maal bi war na wàcce wàcceewul góor la am jigéen après di ñu ko wan. ñu dugg ci beneen box Cheikh. waaw téléspectateur Ladoum TV ba tey duggaat nañ ci beneen box. Cheikh bi box ban la ban tur box bi. bii mooy boxu Makka. Makka jaxat Makka kal Makka parce que boo gisee ñu ne Mbaakool. Mbaakool. Mhm. Euh, mhm. mi ngi nekk Makka mi ngi nekk ci Mbaakool mbaa mooy sama dëkk cosaan. ndeysaan donc moo tax mu jëlee box bi tuddee ko Makka. nga xam ne foofu tey jii falaa laa juddoo euh, fa laa jógee ñëw Touba ngërëm bi sàkku itam lu ma am donc su ma dikkee am euh, bergerie su ma nee bergerie Mbakol damay wax chaque journée abogan bi mu dikkee tax euh, maanaam di def élevage laadum dafay jël bergerie am tudde ko Galoya mu def man nag dama gis ne su ma gis su may roy damay roy loo xam ne lu baax la dama fàtte fu ma jógee moo tax ma jël ber jël bergerie tudde ko Mbakol kal mu karama jaxate macha allah box bi ñu nekk da nga ko beral loxo moo tax nga tuddee ko màkka lu tax nga beral ko loxo nag dañ fee gis ay produits extraordinaire dañ fee gis ay agnelle de plaisir ay xar yi nga xamante ni si xar yu amul fenn ay xar yoo xamante ni si fu ñu dox ñu ne gongo fu ñu génn ci foire ñu ne gongo fu ñu dugg ci concours ñu ne gongo Cheikh secret bi ba tey lii Cheikh lii <laughs> waaw xam nga euh, suul. Mhm. élevage boo fi nekkee boo mënut muñ xaalis rek. Mhm. daanaka saa bu ndikkee maa maa moom li gars yi naan maa moomoon daal ci ngay mujjee. ci ngay ko moomoon maa ko moomoon. <laughs> moo tax am na yoo xam ne bu fekkee ne yaa ngi liggéey am fooy bëgg a àgg faaw nga xaalis. Mhm. xam nga lii élevage jamono jii ku yoru tool nii. kii buñ la waxee ne ab añala buy door a tëggu ba ci dem. kii nga ne. kii day door a day doog a tëggu nii. <laughs> day door a <laughs> te kii cheikh da ko recruter bi muy nekk mbote ñëw tey ñëpp ne cheikh def na cheikh def na kii kii Abou Fall moo ko mën a moo ko mën a moo ko mën a kii de moo ko mën a présenté comme niñ leen ko waxee rek di jaajëfal waa Ladoum TV bu baax parce que yéen a ngi liggéey ci élevage liggéey bu mucc ayib xañ na lii ñu bari ñu ngi koy xeeb ne lu rëy la ñun xam nañ ci dara ñun ñu nekk ci bergerie yi di ko taxaw ñu bari di jaar ci ñun di dugg ci élevage bi parce que parfois nit nañu seetaan naa sa vidéo wala gis naa xaru diw ak diw nga leeral ko mu ne la kooku nan la mën a bokkee ci seen milieu bi. kon dañuy jëm ci nawaa bi nga xam ne tey recrutement moo waral coow li di benn tëng boo xam ne si ni tey macha allah boo xoolee auteur bi dal na xel LCS bi dal na xel. di wax ne nag euh, di avertir ñëpp ah nañ ko bàyyi xel de ci journée yi jëm yàgg naa ko wax nag kii xar. nee nañ ko bàyyi xel incha allahu rabbi ci surnu yu ñu jëm. Euh, di ko présenté euh, comme euh, éleveur yi comme ni nga bëggee bu fekkee prigré gris bi moom. moom doomu Meslin la. Meslin doomu préfet la. préfet ku ne xam ne ne doomu Saalum Saalum la. bu dee yaayu Meslin ku ne xam ne ne Boussa Bali la. taxawaayu Meflin Meflin moog aminte kenn ñoo bokk ñoo moog aminte euh, amin euh, euh, kenn bëggut ah, préfet ak kenn bëggut ñoo bokk nday kon loolu mooy liggéey bu njee ci Saalum mooy doomam yi nga xam ne ñoo gën a mucc ayib gudd nañ jool nañu rëy nañ boo fa jëlee ñoo mel nii ñu ñëw ci côté ndeyam muy beneen prigri boo xam ne bu doy waar ndax yaayam doomu coupable la coupable doomu grand magal la grand magal doomu docteur Fall te ñu jàpp ne grand magal doomu Mara ko jur te kooku femelle bi ko jur bokkoon na ci meilleur doomu magal te magal nañ euh, kii doomu Mara doomu bi jur euh, grand magal bokkoon na ci meilleur doomu Mara yi te Mara moo nekkoon champion tuuba 2016 docteur Fall it ñu bàyyi xel ne mooy xar bi nga xam ne si nii moo fi gënoon seer. trois ans yi ñu génnoon ci ginnaaw Ramadan ko fi jëlee ndax moo fi jaroon quinze millions Ramadan ñëw jar dix neuf millions. boo xoolee kon euh, ci ci wàllu ci ci ci ci wàllu baayam riis na ci wàllu ndeyam riis na macha allah. Hmm. njool na gudd na rëy na. Hmm. rafet na teg ci. Hmm. kii boo ko boo ko croisé loo ko croisel yàlla suñu borom nangu loo ko croisel yàlla suñu borom teg ci loxo bu la wàcceelee or la lu mu la wàcceel ak lu élevage la gongo macha allah ngeen bàyyi ko xel bu baax a baax a baax a baax a baax kii bàyyi leen ko xel bu baax a baax a baax a baax a baax. acca comme ni leen ko waxee rek. ba tey ci xar bi rek ci biir ko jox bi rek kii mooy kan. kii mooy euh, madame John. madame John waaw. kooku xanaa euh, soxna Youssou John ngeen ko jot. oh tubaab fakka macha allah macha allah. Mm-hmm. nga présenté ñu madame John. waa di ñëwaat rek. Euh, di présenter madame Dionne di ci am fierté lool Cheikh Diakhaté tuddee xar madame Dionne macha allah ndax Youssou suñ grand boo xam ne fekkul dara luy yàqu mu seetaan ko lépp lu yàqu rek defar na ko luy defar gën na koo defar macha allah ndax bokk na ci li ñu ñimeloo ñu mën a dox ci bergerie bi bu baax a baax ndax doxinam bu rafet grand bu baax la wax dëgg yàlla madame Dionne nii nag xar bu neex a présenté la ci côté ndey ak côté baay ndax buñ ne koy koy koy sa baay ñu ne Massi Sara koy sa yaay ñu ne ñu ne ñu ne Saalum Saalum loolu nag li liñ ci jublu mooy kii doomu Yacine Boubou la Yacine Boubou ku ne xam na ne doomu Saalum Saalum la ak mère famille Youssou Dione tous les temps nag Expresso di doomu booy Ngañ moom itam kon kii wax dëgg yàlla présenté ko yomb na lool bu fekkee côté euh, Ila Touba euh, côté euh, magistrat bi Ila Touba la Ila Touba ku ne xam na ko doomu Adja far bala moom itam ba baayam di eh, eh, eh, kele Daaru Salaam Daaru Salaam di magistrat kon loolu kii prix bi bi mu boole moom itam wax dëgg yàlla ñu xool ko mu mel nii te Yacine boobu it man nañ ne recrutement yi ñu defoon fii ci biir bergerie bi bokkoon na ci xar yi ëpp yaakaar. macha allah bàyyi leen ci xel ba rek ci biir gisaan nañ fi beneen femelle. représenté hmm. ñu kii. kii doomu muri euh, sëtu Mouride Sadex. sëtu Mouride Sadex. benn doomu Mouride Sadex bu nekk ci suñu Cheikh Mbacke Lo. Mhm. moo ko jur. Mhm. côté yaayam it demaat ci magistrat bi. macha allah buñ dee dugg ci xar yi bu yàggee dañ naan. Euh, <laughs> xam Saalum magistrat. am na fu mu doon jàngee moom avant muy ñëw ci moom. moom kañ dafa teel a mokkal. <laughs> na fu mu doon bala muy dugg dafa gëstu. ba am lu dëgër doog dugg ci càmm bi. yaay ji. Mhm. moom itam doomu docteur Fall direct la. macha allah. docteur Fall doomu magistrat la. ku ne xam ne ne docteur eh. Fall bu mag bi moo ko yoroon Tafa Ndoye moom itam nga xam ne kii dafa dajale maam liggéeyu ndaanaan yi ci dëkk bi macha allah tey ci loxo ah. macha allah eh, yeneen a ngi ñëw yow ah téléspectateur Ladoum TV yéen a gisandoo xoolal ma kii kii mooy kan wax ñu kii mooy kan kii ba tey damay dikkaat ki moom mhm. ndax kii buñ ne koo jàkk suñu xel day dem ci Baye Sam Tandiang mhm. moom fu mu bokk kii mhm. doomu King Kong la King Kong doomu Masiri la Massiré doomu la Laat la. macha allah macha allah moom mi ngi toll si ñaata mois. moom pour euh, l'instant fi mu doon mi ngi ci 6 mois. 6 mois tubaar fakalla téléspectateur Ladoum TV xool leen tëng bi xool leen tëng boobu kooku añal de plaisir la macha allah mu toll ci 6 mois ñu gis si benn cuulul cuulul boobu mooy. waaw cuulul bi dañuy delluwaat Thiès moom mhm. mhm. ndax ca préfet ba. waaw dafa leer ca jàppoot ba. ca jàppoot ba. ah kon cuulul bi ca jàppoot ba ko jëlee ji kii moom itam bàyyam jàppatu ko jur macha allah macha allah benn xarit mhm. euh, parce que kii euh, jib mhm. moom itam ma ñëw jox ko si ajaate tubaar fakal la gis nii mhm. maam fii daal wax dëgg yàlla cocktail de sang moo fi daje yëpp lañ daje macha allah macha allah téléspectateur TV yéen a gisandoo yéen a déggandoo bergerie Mbakol mu ngeen xoolee tëng yii fii ci box bu ñu tuddee Makka nga xam ne fii ay agnelle de plaisir ay tëng yu amul fenn ñoo fi nekk ay tëng yu toog ñoo fi nekk ay tëng yu pare ñoo fi nekk téléspectateur Ladoum TV kon ngeen xam ni ñi daal duñu ay foo duñu ay caaxaan Cheikh kon ñu demaat ci beneen box. waaw téléspectateur Ladoum TV ba tey yéen a gisandoo pépinière bi waaw bu ngeen gisee mbote yi ngeen xam ni ay mbote de plaisir. ay culul yu rafet yoo xamante ni si kuy seen bàyyi seetatëtët ñu bàyyi Cheikh Diakhaté nag présenté mbote yi mais balaa muy présenté mbote yi gis naa fi mu téye fi benn jeune mâle bu doy waar ah Cheikh nga présenté ñu jeune mâle boobu nga téye woon sur ki mooy rajaxe euh, rajaxe ki mooy rajaxe rajaxe noonu lay ñëwee rajaxe ko rajaxe kii day ñëw pour rajaxe plan gars yëpp lay rajaxe oh, day ñëw pour rajaxe càmm gi wàccee leen ba zéro <laughs> waaw kii mooy rajaxe eh, kii suul. Mhm. kii nekk eh, doomu Erdogan. Mhm. Erdogan nekk doomu Picasso. Mhm. Picasso comme ni la waxee yaay ji nekk doomu Lissa. Lissa nekk doomu Cheikh Diop. Picasso baayam nekk Saalum Saalum. macha allah Saalum Saalum ñëpp xam nañ ko càmm dafa leer. donc nekk eh, seen maal bu yaakaaru. boo xam ne. ku ne xam ne Picasso mooy borom production bi Cheikh kii da ko da nga ko juddloo wala Cheikh kii da nga def recruter Cheikh. kii dama ko recruter. da su ndaw bépp recruter indi sama gerte jox biberon. macha allah macha allah kon bi nga koy recruter ferul. boo ferul dama ko. nga ci mbote. li ma lay wax kay ci mbote su ndaw su koy xëpp laa ko recruter indi sama gerte. waaw ah, loolu am na solo waaw ba tey nag gis nañ fi ay tëng ay mbote yu rafet Cheikh. gis nañ fi ay mbote yu doy waar ay mbote yu rafet. def ay robu culul hmm. ah ñi def ay robu weex hmm. Cheikh nga présenté ñu mbote yi mbote yi ñooy ñan Cheikh waaw mbote yi euh, mooy seen kii maal boobu ma la waxoon nga xam ne moom laa recruté woon mhm. euh, yaa yaa six mois sept six six mois set mois mhm. donc moom moo ñu def premier touram moo nekk nii mhm. am na d'ailleurs ay yetam yeneen mbokk mboote yi nekk ci biir mais yii laa ci comment yii laa ci ah, ñi euh, ñooy premier touru maal bi premier touru maal bi Meslin si biir sa biir bergerie macha allah waaw eh, bergerie Mbakol liggéey nañ ah. parce que boo xoolee maal bi. Mhm. biñ ko recruter léegi am na ay cinq six mois sept. Mhm. bu ngeen xoolee ci ginnaaw ñëwoon nañ fa def ak benn émission waxtaan bu neex. Mhm. mu présenté woon ñu maal bi jamono jooju sax fekkoon nañu maal bi. di tëb benn femelle. tay tey jii tey fekkaat nañ fi ay mbote. kon looloo waral ni maal boobu tey moo produire mbote yaa nekk nii. mbote maa ngi nii bi maal bi keroog bi ngeen di ñëw. Uh-huh. femelle bi mu doon fa wéel bi mu doon tëb. bii la wàccee waaw boobu la wàccee macha allah robu cullul. waaw cullul bi def corne. voilà oh là là. elle est boo xoolee maam yi maam ji. elle est magnifique préfet. Uh-huh. boo xoolee maam ji rek li la indiwaat fii. ci loolu tubaar fa kàlla tubaar fa kàlla macha allah. Cheikh lan nga ñu mën a wax ci groupe mbote bi Cheikh. groupe bi euh, li nga comme ni nga ko waxee rek. mbote ay añal de plaisir uh-huh. te itam euh, comme noonu nga ko waxee ku ñëwoon. Uh-huh. gis ma jënd maal bi. ak euh, ni mu mel danga ne ma lan moo tax nga jënd maal bi. léegi nag lan moo tax ma jënd maal bi réponse baay ngi nii. macha allah boo dikkee tey jii. doo posé question boobu. kan moo jur xar yi nga su ma nee la maal bi da nga ne ma déedéet. déedéet waaw parce que production bi Euh, bët yi ngay dem fekk fa yaakaar naa bëriwul. bëriwul parce que lii ci benn boo xam bu ci ëpp deux mois amul. mal kii jeune bi moo ci am trois mois mais yi ci amul benn bu mu ci ëpp bu ci mën a deux mois. macha allah macha allah presque le premier juillet lañ judd. ñu ngi ci presque deux mois yu yu yu yu door a mat. donc dañuy war ne maanaam production mal bi liñ ci amoon rek am nañ ci lu kawe donc seen production. dañuy am njort lu baax a baax na pour xar ci ay produit podium la produit ndax boo xoolee tëng yi mbote yi boo leen xoolee xam ne ñii duñu ay caaxaana ah. ñii relève u élevage la ñii war nañoo yóbbu élevage yu Touba élevage yu Sénégal ci beneen niveau parce que boo xoolee mbote yi oh Cheikh kaa ñu dugg nga ñu seen baay waaw comme li ma lay wax nag élevage liggéey la xar bi am na ñoo xam ne ñëw nañ fi ne ma lan moo la dugal ci xar mi te xar mi dèjà li moo ko jënd rek boo xooloon mbote yi mu fi wàcce benn benn benn mbote rek génne la ma xar bi kon liggéey dafa am loo xam ne mhm. gëm-gëm la mhm. te boo gisee xar production dafa yombul maanaam xar mu mën a produit moo yombul mhm. donc boo gisee xar day bu boo xam ne day produire te saabu bu produire ñëpp ne ne macha allah xar boobu du xaru caaxaan ndax sàmm loolu lañ ko doye ndax boo xoolee xar mi comme ni ma la tojalee prix dem fi mu jógee ci côté baayam ci côté yaayam nga ko di ko xool ci ay doom di ko gis da ngay xam ne lii mooy réalité bi la jur. macha lii nga xam ne fa la jógee noonu yooyu euh, xar yooyu lay jur. tubaar fakkaal <clears throat> ndax xar mi spectateur Ladoum TV. yéen déggandoo yéen a gisandoo. ñëwoon nañ fi ay jamono ci ginnaaw fekkoon fi maal bi ñu posé ko question lu tax nga bàyyi fi maal bi lu tax nga recruter maal bi. parce que amoon na ay bergerie yi mu doon nekk ñu soofantal maal bi duñ ko bàyyi mu liggéey duñ ko liggéey loo. Cheikh ne dafa am lu ci gis capital génétique bi nekk ci maal tey jii tey Cheikh a donné raison à tout le monde parce que tey boo xoolee production mal bi du ay caaxaan. ba tey rek gisaat nañ fi benn rob bu ñuul. Cheikh kii mooy kan Cheikh. kii kii tënk bii kii kii doomu yaasin boobu la. Oh, oh jigéen ju moon góor. macha allah macha allah ni ma ko lee Yacine boobu dafa daanu bu yàggul. Mhm. donc ma jël tur bi rafaatale ko ci doom bi. am yaakaar gu ma am yaakaar ci euh, añal bi. Mhm. boo xoolee robu yaay ji rek la lay indi. tubaar fakkaal la. waaw ci côté yëpp ndax yaay ji dafa nekk yaay sama dafa nekkoon xar mu doy waar. Uh-huh. nekk doomu Saalum Saalum. Uh-huh. ba pare wëlbatiku nekk gi mu ko nekk nekkul rek ne doomu Saalum Saalum la mais. Uh-huh. dafa indi yenn macération yoo xam ne ku ko gis da ko laajaat. tubaar fakkaal donc bu dikkee indi lu mel nii nga xam ne ay seex lan ginnaaw présenté naa la seex bi léegi ci ginnaaw. donc bu dikkee indi lu mel nii. yaay ja daanu. macha allah naan lekk daa mel ne Yacine Mboup kon dafa dafa préparé woon donam ci ginnaaw moo tax ñu jël tur bi tafaatale ko. relève am mi ngi nii relève am mi ngi nii. macha allah TV bu ngeen xoolee borom rob bi beneen affaire la du ay foo du ay caaxaan. seex mhm. ba tey gisaat nañ fi beneen beneen collier jaune def rob bu ñuul moom tamit Cheikh kooku mooy kan. Ah. kii. kii uh-huh. doomu Layla la. Layla Layla bu Pape Ndiaye. oh là là. doomu Layla la. oh là là macha allah nekk doomu Ila Touba. oh donc mi ngi nii nekk euh, femelle boo xamee tamit. Mhm. doy waar la. Mhm. ci production boo gisee euh, bopp bu rëy bi ak fano bi. Mhm. rek da nga xam ne kan mooy sa baay kan mooy sa yaay nga xam ne lay laa. nekk doomu Ila Touba tamit Ila Touba nekk doomu Darou Salaam. Darou Salaam nekk doomu magistrat. kii dafa dafa del dafa delluwaat ca Saalum ba. dafa delluwaat ca Saalum robu Saalum bi la indi. macha allah macha allah. waaw gis nañ fi borom rob bu weex. Mhm. takk collier bu rouge bi. voilà cornet bi. bi euh, moo nekk mal bi nga xam ne moom laa leen présenté léegi muy King Kong. Mhm. kee moo ko jur. kii mooy. kee mooy. yaayu King Kong mooy yaayu King Kong ak euh, añal bu ma leen présenté woon. mu mhm. jur euh, doom ju kii bi nu sax. añal bi ma doon leen présenté bu 14 mois bi. Mhm. moom moo kii moo ko jur. macha allah lu nekk mu nekk euh, une famille extraordinaire. Mhm. Mhm. kii mooy aawo. kii mooy aawo nekk benn famille bu extraordinaire ci production. kii doomu euh, Darou Minam la. Darou Minam nekk doomu Asalem Seck. Asalem Seck nekk dool doomu. booy ngañ booy ngañ donc doomu gelwaar nekk bu réew kii nag moom dafay eh, daa daaru minam moo ko jur te daaru minam boo ko xoolee ci boo li ngay njëkk gis ci moom mooy poids bi ak rëy gum rëy parce que da ngay xam ne doom booy ngañ moom produire euh, day mel ne ay booy ngañ lay produire ay booy ngañ lay voilà ay xar yu rëy yu am jëm mhm. boo xoolee ci production mâle bi gis nga ko mhm. boo dikkee rek mais am naa ah, loolu am na solo téléspectateur Ladoum TV lem du jiwu nag waaye dañ koy dog ba beneen xam ni li duuf ci nag li lépp xajul ci cin li tey ñu ñëw bergerie Mbakol fii ci Touba seet fi un très grand champion Cheikh Diakhaté muy liggéey liggéey bu extra liggéey bu doy waar liggéey bu rafet macha allah ay produits yu extraordinaire la tey fii ci bergerie Mbakol Cheikh. lan ngay tàggatoo ak waa laa Ladoum TV ak lan ngay wax waa Touba. waa sul maa ngi leen di nuyu baax di la ziar. li leen wax ne nag maanaam boo gisee yi nga xam ne moom lañ ci ay yëpp dama dama leen di jox dig daje ci foire yi nga xam ne moom lañ allah. di ko jox daje ñu nag waa Touba yëpp. wax waa Touba ku digg seen ci Touba da xam ne ñoom ñu ngi liggéey. te yor na ay produits extraordinaire yoo xam ne bérisel yi ngay dem di ko fekk. dëgg la. donc ñooñu moo tax dañuy ñëw waaj pour dem ci sectoriel ndax dañoo jaral ñu dem liggéey waat buñ liggéeyee nag day am tax ñu di ko ñu di ko présenté muy dem ci foire donc dañuy jox daje ñëpp ci foire yi te xam ne ñoom ñëwuñu fi pour invité wala ñëwuñu pour dañoo liggéey ngir bu ndikkee wane ñi nga xam ne eh, sunu mbokk éleveur wane leen waa tubaa dañuy ñëw pour wane seen produit yi nga xam ne moom lañu liggéey. côté waa Touba pare nañu. waa Touba bergerie pare na. bergerie Mbakol pare ñëw dal seen kaw. Youssou Dione pare na Pape Ndiaye pare na. Mhm. Modou Lo ñëw ñëpp pare nañ. donc dañ leen jox dig daje pour euh, maanaam foire yi nga xam ne euh, liggéey liggéey booy gis. Mhm. bis a tax. te bis boobu ñuy jublu si. Mhm. dañ koy waajal. ci côté yëpp. tubaar fakkaan nga fàttali ñu bergerie bi fan la nekk ak seen numéro téléphone pour ku bëgg ñëw fii. waaw biir bergerie Mbakol mi ngi nekk euh, boo ñëwee ci garage Dakar bi njëkk boo wëree rond point bi. Mhm. da ngay kàbbar jublu penku. boo jéggee raay bi. am na benn bayal bu ñu bu fuy camion yi euh, camion UGG fi ñu nekk. Mhm. société UGG. moo lay féete sa loxo ndeyjoor bu fekkee ne da ngaa euh, ci da ngaa jóge ci rond point euh, da gare Dakar moo lay féete sa loxo. Mhm. donc wala nga woon ni suñu numéro téléphone. Mhm. am na WhatsApp. 77 415 22 28. macha allah 77 415 vingt 28. macha allah loolu am na solo téléspectateur Ladoum TV waaw kooku mooy Cheikh Bergerie Mbakol ñëwoon fii ci Touba nag defoon émission ak moom ci jamono yee ci ginnaaw ñu xooloon li nga xamante ni si moom la doon liggéey tey ñu toppaat ko ñëwaat fii gisaat li mu liggéey xam ni Cheikh yokk na cere dolli na ñeex Cheikh jóge na ci beneen étape teguwaat ci beneen étape kon ne xam ni Cheikh mi ngi liggéey liggéey bu extra di leen jox dig daje nag. ci seen yeneen i émission yi di ñëw ànd ak seen télévision Ladoum TV